Sonko ak ki nga xamante ne moom mooy le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu def ci liggéey bi mucc ayib donc loolu également c'est important il fallait que ñu wax leen ko je dis que muurkat kese muurkat képp suufal ce dossier kese dayoon na sëkk ngir ñu doxaat kàddu bi ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko ngir am majorité à l'Assemblée nationale waaye boo jógee foofu nga dem fële nga xamante ne moom mooy capital humain qualité et équité sociale Amadou Ba am na lu mu ci wax ci wàllum santé ñu am ay infrastructures yu doy ci wàllu la formation de la jeunesse ñu am autant d'écoles de formation loolu mbir la moo xamante ne day permettre à ce que jeunes ñu am une bonne formation mais aussi ñu am une adéquation entre la formation et le monde de l'emploi ba nga xamante ne jeune bi bu génnee fañ koy former il y aura assez d'économie compétitive boo xamante ni dina mën a dugg parce que ñu bëri ci yéen buñ leen former ba pare dañuy am problème o fan la ñuy dugg ngir liggéey kon formation bi daa war a méngoo ak li nga xamante ne moom la suñu économie laaj beneen bi nga xamante ne moom la ñuy mujjee mooy bon gouvernement bonne gouvernance et engagement africain gis ngeen mbokk yi ñi ngeen gis ñi ñëpp tey kenn sañu ci jël benn oto boo xamante ne oto nguur gi ne da koy campagne loolu mooy bonne gouvernance kenn sañu cee jël carburant boo xamante ne carburant nguur gi la ne da koy campagne loolu mooy bonne gouvernance waaye li ñu gëm te Mamadou Dia waxoon ko te ne moom la mere woon Senghor mooy dafa gëm ne Sénégal yoon wi ñu war a mën a jël mën na servir de tâche d'huile ba yeneen dëkk yi nga xamante ñoo nekk Afrique yëpp mën koo topp muy seen yoonu développement lii mooy projet bi nga xamante ne mooy référentiel bi ñu leen présenté te kilifa gi war koo jokkali kon damay jël kàddu gi jox ko ko mu mën koo yaatal waaye président Ousmane cette jeunesse là la jeunesse de Thiès la jeunesse du département de Thiès nee nañu dañ lay sargal kontaan nañu bëgg nañu ci ñëw bi nga xamante ne tuddee nga ko campagne bi fii di kon dañuy jël kàddu gi buñ ma joxee beneen micro bi voilà mi ngi ak moom kon président Ousmane kàddu gaa ngi noonu. Eh, eh, eh, ana Tafsir ana Tafsir na Tafsir tàkk ma seen si kaw. est-ce que ça va. Ousmane Sonko jërëjëf ma présenté leen Ousmane Sonko mbokk yi asalaamu ñu leen di nuyu di leen ziar. mën naa wax ni kenn ëppale bëggoon ñu waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu jii su limee rek juum waaye képp ku fi kilifa diine ak foo bokk ñu ngi lay ziar di la nuyu di jox sa maire d'arrondissement di nuyu nag ànd ngi commencé yàgg te lépp ñu teg ci bëgg réew mi mooy ñi fi jël kon maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di jottali nag ko tudd ci cëru président la république cadre boobu waaye dama ko tudd ci cëru militant wu parti bi nga xam ne fee nekk ci jamono ji di arabi Saoudite bu loolu weesoo nag mbokk yi senegal dafa di réew bu doy waar yàlla def nag ñu nekk ci jamono média ba gaay ku xëy rek bu la leeree ni ñaari nit toppuñu la boo demee ci débat ci média ñu tax waaye nag jamono dëgg bu jotee te ci lañu nekk tey jii kenn ku ne dina xam lu mu tekk ci nag àdduna bi yëpp ku seetaan première journée de campagne bi nga xool li xew Sénégal gaa ñu seen morom moo tax ñu war a tey te ànd ak dal ndax am na ku ko wax fi léegi daf nañ ni seen politik yépp ñu ko lal ci wax ju ñaaw sosal nit sosal gouvernement violence verbale di waajal sax ñenn ñi violence physique ndax lu ñu pexe rek ku jàpp ni di nga xëy campagne électorale pré campagne suba ba ngoon jot sa thème yépp mooy am Sonko li nga xam ne loolu du fay gis nga politique mooy nu nit bañ bañ Pastef war nga koo nangul ni bañ duggee ci politique ci politique agricole ak yeneen ak yeneen ci la commencé nekk un débat kon nag loolu budee dee démb bi ñuy nekk opposition lañu ko mënoon animation baax na ndax politique nag loolu da cee bokk waaye kenn ku ne ci jëlee njëriñ ci fekk réew mi ak fa ko bëgg a wala ñuy woote seen bopp opposition ndax keroog la 17 bu soobee yàlla nañu xam ne opposition amu fi mel ni ay rab yu ñu firi te nag def njombe bu la neex dañuy faagaagal ñu défendre suñu bopp ñoo xëy rek dem songu nit ñi waaye tey lan nga gis ñoo xam ne xëy suba bëggoon jot ne tey ma songu waaye tey am na ñu ñu ne ndax mbir mi du course de vitesse course de fond la daw ni kuy daw 100 mètres gëm naa ni balaa ngay def premier 400 mètres toog ci xorom waaye lii taxu moo a jóg dañ leen waxoon ni da nga koy ñunu ko toog ak ko pour mu gën a saf président ca la coow la jeexee amatuñu lu ñuy wax lu dul ay xaw na am niroog PSE jegewul sax PSE majorité écrasante le président Diomaye ñu jël pouvoir exécutif muy benn pàcc bu am solo président moom décret la am waaye décret lan du domaine de la kon décret lu limité la kenn waaye su loolu il faut budget ba dem assemblée assemblée nationale la fonction de représentation assemblée nationale la waaye wax nañ ko léegi am privilège juridictionnel neew ñu kenn mënu leen atte de waaye dañ ne tribunaux yii mu sis assemblée nationale ndax bëgg ngeen ñooñu layoog Sénégal kon yi yëpp bu dajee pour président Bassirou Diomaye ak gouvernement am li nga xam nun nag dañu bëgg ñoom liy rëcc ci ñoom dugg assemblée kon loolu faw rek ñu complété ko mais ma nag campagne bi dañu fas yéene ñëw bi wax na leen les grands axes dama bëgg ñi dégloonte bu baax ndax am na solo dama bëgg ñi bu boobaa bu ñu waxee ñu ne d'accord nañu dañu tëgg mu am bu nord am bu nord est am bu centre nord am bu centre bu ngeen gisee tuddee gu ñu pôle yu bari dañu bëgg suñu boo demee vers le sud-est mun nga ne dama ko bëgg a tuddee bundu waaye bundu de benn la woon ci royaume yi fi nekkoon waaye am na beneen bu nekkoon à côté fii Thiès boo ñëwee mun nga ne dama koo bëgg tuddee Kayoor waaye nañ la ne région Thiès dafa dem ba laal peut benn partie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 yi opposition bi daf ko woo jox ko xaalis bu bari ne ko góor gi nekk ba bërëb sàngam dégg naa xam-xam bu dul jeex la yor te lu mu defar mu sotti xam ngeen li ma bëgg li ma bëgg nga demal joxal ma ko xaalis bi yëpp xam nga li ma bëgg na fexe ba tàqale diggante Ousmane Sonko ak jeunesse bi. <laughs>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 léegi coow li nga dégg waaw mais waru ko woon wax sax ndax dafay dafay exposé Sénégal à l'extérieur Sénégal opposition amul fi ñi dañuy fontu dañuy caaxaan moo tax dama leen xaw a yërëm ndax traversé désert bi dina métti lool yéen jeunesse bi laay waxal fi ñu jëm xam nañ ko de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 ak bi nga xam ne mooy souveraineté nationale oh, eh, ci ñaar yooyu lima ci bëgg a wax mooy dañ leen wax ni bi ñu jëlee réew mi malheureusement fi écran yi ni ñu féete bi nekk ci moo tax du ngeen ko gis waaye bi ñu jëlee réew mi ñett ñu jël parti ouest bi mooy nga tracé ko ci kaw ba ci suuf nag nga jël parti centre bi ouest bi moom mi ngi représenté 46 pour cent ci koom-koomu réew mi nga xam ne matul zéro virgule pour cinq cinq pour cent du territoire national partie centre bi mot quarante cinq pour cent ci économie bi waaye boo jëlee partie sud ak sud-est sud-est est bi ak sud-est mi ngi représenté neuf pour cent ci économie nationale territorial inéquité territoriale ci développement réew nag boo ko bëggee développe faw rek nga fexe ba mu am pôle yu bëri te pôle bu nekk am koom gu doy goo xam ne mën naa téye waa dëkk boobu foofu moo tax loolu mooy suñu premier pari ci suñu politique de développement boo jëlee fii ñu teg ñu teg Thiès pôle Thiès bi mu ngi représenter un peu moins de huit pour cent ci bi économie nationale loolu tuuti na te wax na ko léegi moom Birame Souleye capacité yi am fii kenn xamul nu mu toll moo tax nag ci suñu programme ñu ne faw rek ñu jóg ci mbir moomu Thiès am na phosphate am na zircon Thiès am na suuf su nangu ci zone des ñaay bi mais ci yeneen zone yëpp loo fi bay mu nangu Thiès am na accès à la mer ak ay infrastructure portuaire fu mel ni Kayar ak feneen ak feneen kon booy seet ci pôle yi dafa mel ni Thiès cees am na capacité touristique su ma nee cees région bi laa wax mbuur a ngi ci Tivaouane a ngi ci comprendre li ma wax pôle de développement lañ leen wax boo jëlee pôle de développement bi moo dugal Mbour moo dugal Tivaouane moo dugal Thiès kon capacité ba wax ni dafa boole loolu yëpp waa lan moo tax tey mënuñoo fexe ba mu jëriñ waa Thiès jëriñ waa senegal léegi dañ ma wax am nañu fi tudd waxum ICS tey wax nañ ma ko bi ma jaaree Taïba am na yoo xam ne mënul mënuñu ko nangu est-ce que xam ngeen ni bugguma sax mu mel ni damay singali benn entreprise waaye nag dañ leen yàgg wax ni alalu réew mi il faut ñu téye ko ci réew mi boo jëlee lu mel ni ICS ñetti convention lañ ko signé ñett de 1984 à maintenant mooy la seule entreprise bu am ñetti convention ñu jox ko ay avantages yoo xam ne du fay benn impôt benn impôt benn impôt du ko fay ba ñekk ba ma defee calcul ci ñeenti at yi weesu li mu waroon fay impôt rek mbat na 150 milliards yoo xam ne nee na France. benn impôt du ko fay nga dellu siwaat ñu ne la redevance yi nga xam ne sax dañ dañ ko ne mu fay ko tey ministre bi yor loolu mi ngi fii waa Cees di Birame Souleye bi ñu toogee la leen bind ne leen amel ngeen ñu un milliard cinq cent de redevance leen ko war a fay ñu lànk ne duñ ko fay ba tey ji waaye mag mag cent quatre-vingt-quatorze milliards jum naa sax cent onze milliards ñu ne duñ ko fay waaye ma gaaral leen dañ ko fay parce que réew mi nag dafa am boroom boroom réew mi mooy waa senegal nga dellu siwaat ñu ne la phosphate bi ñu fiy def di ko transformer engrais lépp dañ koy génnee pratiquement yóbbu ko ñoom seen réew ba ñun suñu mbay nga xam ne soxla na engrais mënuñoo am engrais bu doy dañuy dem di jéggaani engrais di ko importer loolu yoon la noonu mu amee foofu noonu la amee ci ñeneen ñëpp nag moo tax bi ñu toogee ñun li ma njëkk a def président nangul ma ko mooy ñu taxawal benn kuréel boo xam ne moom la ñu tuddee commission de relecture des conventions et des contrat commission boobu ngi liggéey fii ci primature amul benn secteur boo xam ne dina ci mucc du pétrole du gaz du phosphate du zircon du accord de pêche du infrastructure lépp dinañ ko liñatu ba mu mat sëkk lépp luñ ci deful ci intérêt Sénégal moo wax leen ko fii dinañ ne woon ba ñu ñëw toog ñu yeneen lii mënut a nekk jaaduwut ñëw leen ñu waxtaan su ngeen d'accord ñu waxtaan su ngeen d'accordul nag dinañu xam fu ñu jaar waaye dinañ jëlaat suñu yëf lii promesse de campagne la wante dinañ ko def parce que xam ngeen lan mooy premier dama musa wax président ma ne ko gis nga mandat bi moo war a nekk mandat bu ñuy régler définitivement un de nos problèmes les plus cruciaux mooy la question du financement de notre économie et de nos politiques de développement réew mu mënul financer ay politiquem am yaakaaroo lu dul taxawal plan jël sa avion dem ci tubaab yi di ñaanaatu ak di leb réew moomu mënul dem ci jamono joo xam ne yàlla may na la alal gune nga tayle ko saa à Sénégal booy seet dafay mel ni ñun ñi ñu jiite dañoo am problème yow boo amee or joxe boo amee zircon joxe boo amee pétrole joxe sa suuf nga joxe jën gi nga joxe ba nappkat yi amatuñu jën ba pare ngay wër di tàllal sa loxo di ñaan ak di leb est-ce que loolu jaadu na moo tax suñu premier problème bu ñu war a régler mooy la question du financement de notre économie te mi ngi jaar ci mesure yii ñu war a def boo jëlee nag région de Thiès soo seetee ci suñu la vision 2050 dañu ne axes yi ñu tracé ay filières ñoo koy lal parce que Sénégal mooy réew moo xam ne amul benn filière boo xam ne am nga chaine de valeur complète li may wax nii xaj na seen bopp bu leen kenn gëm lool ak ni gis ngeen intellectuel yi wala politiciens yu dëng yi bu leen bëggee nax dañuy ñëw naa ne non lii trop technique lii ñu am xam-xam rek ñoo ko xam li may wax nii bu ngeen ma dégloo comprendre ko te xam naa ni comprendre ngeen ko dañ leen génneel ay axe mais axe yooyu dañ koy lal ci ay filières yu ñuy développé parce que Sénégal amul benn filière boo xam ne am na chaîne de valeur complète chaîne de valeur complète mooy depuis extraction bi wala bu dee mbay mi depuis buñ koy bay buñ koy transformé ba biñ koy commercialiser amul benn benn Sénégal boo xam ne mën nga ko jël nga ne am nga chaîne de valeur complète réew mu mel noonu nag réew mu amul koom-koom amul économie ñun nag suñu mandat dañu ne ñun li ñu jitteel mooy tabax économie d'abord parce que boo tabaxee économie ba sa mbay dox sa càmm dox say ressources naturelles nga téye ko ci réew mi fii am na gaz ñun biñ ñëwee liñ fi fekk nee nañu gaz bi signé la ñooy accord dañ koy liquéfier mooy dañ koy def liquide def ko ci ay bateau génne ko dem jaay ko bi ñëwee dañ leen dañu loolu du suñu option gaz bi dañuy def pipeline jël liñ ci soxla andi ko fii transformer ko fii ci Sénégal parce que à l'horizon 2050 tey on a 1900 1900 kilowatts le Sénégal di produire à l'échelle 2050 il nous faut 10 000 kilowatts de plus donc gaz bii la ñu mën a jël boole kook li ñuy def ci les énergies renouvelables loolu ñuy permettre ñu am suffisament d'énergie pour taxawal des industries ba am excédent mën a jaay énergie yeneen réew yi réew noonu lañ koy defaree ñi développé noonu la ñuy def waaye ñun lu ñu am tey ko kon ñu ne filière yooyu il faut ñu tabax ko pôle bu nekk nag pôle bu nekk seet nañu lan mooy ay potentiel am ñu ne filière yi ñuy tabax foofu lañ koy tabaxee fii Thiès su ma nee Thiès nag waa Mbour yi di ma wax Mbour ci Thiès sa bokk région bi laa wax ñu ne Thiès lan mooy ay filières yi nga xam ne mën nañ ko fi def ci lu gaaw a gaaw mu jëriñ réew mi bu ci njëkk mooy filière des cultures maraîchères ku wax maraîchage wax Thiès waaye maraîchage bi sooxe na lu bëri dañuy sa dañuy tuur ji bi dañuy tuur récolte bi fii parce que amuñu sax des chaînes de stockage ou de conservation ñaareel bi mooy filière manioc wala filière horticole yi de manière générale waaye Thiès ñëpp xam nañ ni potentiel bi mu am war nañ développer fii benn filière boo xam ne filière matériaux de construction la su ma nee matériaux de construction nag du ciment bi rek defe naa région de Thiès am na au moins benn cimenterie wala ñaar ñaari cimenterie Dangote ak euh, Ciments du Sahel Thiès la nekk waaye am na ñetteel mooy marocain yi d'accord waaye loolu benn la tey defe naa am na ñuy fabriquer ay carreaux fii te ci région de Thiès la ñu nekk parce que li ñuy defaree carreaux bi matière première bi am na Thiès ak yeneen ak yeneen moo tax ma ne filière matériaux de construction su ñu nee filière phosphate fertilisant loolu yàgg na am Sénégal waaye dafa mel ni bu njëkk ba sax amoon nañu ICS dem ba am Senchim ñu fexe ba rey Senchim defaratuñu engrais defaratuñu dara daa def ay accord jël ICS tayle ko jox ko waa bitim réew ñuy jël lépp di yóbbu kon su ma leen nee loolu dinañ ko renégocier te ci fan yi dinañ leen woo ñu ñëw toog bu ñu paree càmbar gi filière boobu bokk na ci filière yi gën a gaaw a développé Sénégal te ñu am ko fii am ko maatam am ko Daaru Musti muy phosphate boo xam ne phosphate de qualité la est-ce que xam ngeen ni Maroc phosphate moo ko développé Maroc amul pétrole amul gaz amul amul amul waaye bi ñu toogee ba ñoom gis nii te ñii ñu jox tey ICS est-ce que xam ngeen ni ñoom ñoo yoroon phosphate du Maroc bi waaye marocain bi ñu toogee ba roi bi gis ni lii baaxul ci ñun daf leen fa jëlee nationaliser euh, euh, euh, phosphate bi tey premier facteur économique ba ñu tabax ci ay université technique mooy phosphate l'office chérifien du phosphate c'est l'une des plus grandes entreprises d'Afrique aujourd'hui ñun ñu am phosphate depuis longtemps tey le ko ñu koy génne ci réew mi kon filière phosphate et fertilisant filière industrie du verre ndax zircon ngi fi ak leneen ak leneen et enfin tourisme su ñu nee tourisme nag ñëpp dañuy jàpp tourisme balnéaire rek ndax Salé ngi fii ci biir Thiès waaye am na aussi le tourisme religieux ndax Thiès dëkku diine la Tiwaawan a ngi fii Njaasaan a ngi fii Cenebaa ngi fii Kër Maam jee ngi fii ak feneen ak feneen kon war nañ ko fee mën a def kon Thiès it mu am lu ñu fi démarré te ñun ñu bëgg koo accéléré mooy plateforme logistique et hub aéroportuaire ndax soo bëggee def port de Ndayane ak port de Bargny lay logique mooy nga fexe ba benn pôle urbain daal di soqiku ci gannaawam muy un des projets importants industrie extractive et manufacturière nouvelle ville pétrochimique parce que wax naa leen léegi ni gis nga pétrole ak gaz lu mel ni pétrole li ñuy wax produit dérivé du pétrole moo ëpp valeur foofu sax yenn saay pétrole bi ci boppam ndax kuy suivre évolution àdduna xam ni pétrole mi ngi baissé gaz gi moo ëpp valeur foofu pétrole waaye li nga mën a jëlee ci pétrochimie à partie du pétrole ak du gaz nga xam ne mën nga ci defee ure loolu moo ëpp valeur te ngay defee ay industrie te potentiel baa ngi fii ci Thiès ñu ne nag la jëm ci les industries agricoles et l'agro-industrie potentiel bi yëpp mi ngi ci cees lii moo nekk ci vision 2050 bi ñu leen présenté keroog waaye ñu faram-fàcce ko ci plan d'action gouvernemental bu juróomi at yi 2029 faram-fàcce ko ci li ñu tuddee master plan 2034 waaye la ci des doon ay échéance de dix ans dix ans dix ans lii nag lu ñuy liggéey la ci anam goo xam ne faw rek population bi comprendre xam fi ñu bëgg a jëm ñu ànd ak ñun seen tànk suñu tànk parce que dafa am lu war a jeex ci réew mi fal nit ba pare raxasu si dem toog ne sama yoon new ci na ma réglé lu ma lekk ak lu ma naan waaye sama yoon new ci déedéet réew dafa am nu muy doxee dama wax léegi problème financement réew fan lay jëlee lu koy doxal li ñu dañ naan état état état état président Bassirou Diomaye fay yorul lu mu mën a dundalee fukk ci yéen sax waxuma laa lu mu gérer problème yëpp waaye état dafa am fu muy jëlee ay revenu bu ci njëkk mooy lempo l'impôt boobu nag nañ ci def réforme nañ ci def réforme ci fan yii ndax dama wax ni lempo gi gën ci lempo gi mooy bi nga xam ne lañuy ñuy fayeeku yemamaay na waaye ñëpp daje fay ko moo gën nga jël ay taux yu kawe te ñenn rek a koy fay waaye bi ci njëkk mooy lempo réew mi la gën a mën a fay lempo moo la ëpp capacité ñaareel bi mooy li nga xam ne mooy li la yàlla wërsëgale ci ressource naturelle nga gérer ko bu baax ñetteel bi waroon doon loolu sax du levier de financement ci boppam waaye mën na jàppale économie mooy nga am sa mone boo mën a gérer mu méngoo ak sa économie loolu ci li ñuy financé réew la ñetteel bi mooy li nga mën a jëlee ci contribution yi jóge ci les ressources longues comme li nekk ci IPRES wala caisse sécurité sociale yu demee noonu ñu utiliser ko walla li ngay ubbi te temps yi nañ ko def nag mooy li ngay ubbi ne sénégalais yi ah man de bëgg naa defar telle infrastructure bëgguma ko lebe ci biti waaye damay émettre li ñuy wax patriot bond yéen a ngi dégg ay euro bond ñun bëgguñu koo jële ji Europe patriot bond laa bëgg bëgg naa cinq cent milliards yow waa diaspora yow mi ne Sénégal yow ak yow ak yow léeg-léeg mu ne infrastructure yoo xam ne dangay dugal sa xaalis mu jur ñu delloo la sa xaalis kon lii bokk na ci li ñuy financer économie bor doog a ñëw nag dem di lebi ci feneen fu bokkul ak foofu waaye yi ma njëkk a tënk yëpp kan moo koy doxal citoyen bi moo koy doxal am na ku ne léegi nañu créer emploi xam nga emploi lu koy créer état nu mu bëgg a bëgg a jël dafa am fu mu yem tey masse salariale bi li ñuy fay ci salaire état di ko fay dépassé na cinquante pour cent ci budget bi kon lan moo des pour nga tabax ay école nga tabax ay industrie première vocation état du employé waaye état day créer les conditions pour ay entreprise juddu entreprise yooyu ñooy créer des emplois ci loolu la ñu jublu kon fi ñu bëgg a jëm fi ñu bëgg a jëm leer na naññ ci suñu bopp te dinañ fa yegg bu soobee yàlla waaye on a besoin de chacun et de chacune d'entre vous te mu ngi commencé ngeen jox ñu majorité absolue écrasante à l'Assemblée nationale lii nag li tax citoyens yi citoyens Sénégal bañul bañul contribuer li koy li koy firndeel benn bokk na ci mooy tey Pastef saa yu wootee ñu wuyu ko keroog dakaar Dakar Arena benn bés rek cinq cent vingt cinq millions lañ fa levé kon citoyen yi bañuñu joxe ku fi sa daayira nga joxe ku fi sa sëriñ nga joxe ku fi euh, sa région wala sa sa sa village xewle nga joxe kon bañuñu joxe li tax ñu bañ a joxe su dee impôt parce que citoyen bi gëm na ni li may joxe la ci ëpp ay politiciens ñoo koy damm seen poos loolu tax citoyen yi sawaruñu ci joxe moo tax ma bëgg leen assurer quelque chose ma waatal leen ko fii bin billaahi wallaahi ma waatal leen ko fii xam ngeen lu ma bëgg ngeen xam xanaa xanaa ñun lu ñu xamul ñun lu ñu xamul man lu ma yéegul chaque jour ma wax ko du menace nag ministre rek directeur général rek directeur rek chef d'agence ak ku ma yéeg ni jël nga fukki dërëm boo moomut noo seulement doo yendu foofu waaye di ko layoog yoon te lii ma wax nii maa ci gën a tuuti dangar ndax xam naa fi mu toll président Bassirou Diomaye Faye man xam naa ko réew li koy defar mooy alalu mbooloo nañ ko bàyyi mu dellu ci mbooloo mi kenn ku ne lañ lay fay na la doy nga yem ci loolu waaye kenn ku ne ku ñu fal foog nga ni da nga war a nekk millionnaire wala milliardaire ku bëgg loolu da ngay dem ubbi usine dem liggéey loolu yàlla wërsëg nga xam ni lii la fonction publique kenn du ci nekk milliard milliardaire fonction publique président la république ne leen 4 millions 800 lay fayeeku man million millions 300 lay fayeeku naka la ñuy doonee ay milliardaire kon ku ñëw taxaw yor ay mallette li xew ci réew mi maar day taali dañoo sàcc sàcc sàcc sàcc ba amatu lu ñuy sàcc ngeen jéggal ma ci kàddu gi lépp lañu jaay lépp lépp ma wax leen lu gën a gàtt est-ce que xam ngeen ni prison Rebeuss bee est xam ngeen ni jaay nañ ko prison Rebeuss te xam ngeen nuñ ko jaayee huit milliards prison Rebeuss plus d'un plus d'un hectare à Dakar nga xam ne tout gën saa gàtt mën na jar quarante milliards ñun bu ñu egsee ñoo ko bloqué ne annulé nañ ko ñoo ko anile wax leen ni loolu loolu lu gàtt la de loolu xam nga Amadou Ba léegi wax na mbuurkat mais lu ne la ñu jaay gis ngeen prison Cap Manuel bi nga xam ne man fa laa woon bi ñu génnee ba la jox ñu nguur bi bañ ma andile kayit yi ma xool ndekete jaayoon nañu prison Cap Manuel ba toog man xam naa dañ ma naroon jaayaale gaa yi yóbbaale moo tax moo tax gis ngeen wax ji bëri na gis ngeen wax ji bëri na wax ji bëri na waaye xam ngeen lu indi wax ji mooy tiitaange ak ragal parce que kenn ku ne ci ñoom xam na li mu def te ñu bëri foog nañu nag bu ñeen bu ñu amoon mandat ba dem assemblée nationale raw nañu déedéet ndax bu ngeen ñu joxee li ngeen ñuy jox muy majorité absolue écrasante ku fi luubaloon te ñëw nekk député ci benn fan la ñuy teggi sa sa immunité parlementaire nga dem layoo ko loolu yomb nañu waaye yooxu beeg daw beeg yëpp ci pour assemblée nationale mooy jàpp nañ ni mën na leen permettre ñu dem làqu ji mbokk yi alalu réew mi loolu bokk na ci li l'un des plus grands combats yoo xam ne dañ ko war a régler am na ñoo xam ne seen benn compte rek seen benn compte seen benn compte rek fekk nañ fa lu ëpp mille milliards seen benn compte rek foog ngeen ni loolu jaadu na ci réew mi. moo tax defuñu ko parce que dañoo soxor wala dañoo bëgg a lor nit waaye est-ce que d'accord ngeen loolu yëpp ñu bàyyi ko mu romb moo tax alal gi faw mu dellusi si réew mi waaye bu dellu see ba noppi kenn ku ne na xam ni dootuñu nangu ñuy dénk nit responsabilité muy randal alal réew mi moo tax pôle bii nga xam ne mooy poolu cees gannaaw bi ma leen waxee filière yi ñu ci bëgg développe développer bi fi am lañ ca teg mooy fenn fu ne ci dëkku Thiès yi am nañu destination buñ ko bëgg a yóbbul Thiès ci boppam ak Mbour bëgg nañu di doon des métropoles d'équilibre parce que il faut des de très grandes villes Dakar déjà métropole la waaye Dakar suñ ko bëggee désengorger il faut ñu am des métropoles d'équilibre mooy dëkk yoo xam ne déjà am nañu dayoo boo leen yokkee tuuti rek mën nañu doon à l'image d'une capitale moyenne Thiès mën na ko ne Mbour mën na ko ne Tivaouane bëgg nañu mu doon une métropole régionale mooy à à la dimension de la région Tivaouane doon une métropole pas la à la dimension nationale Pout Kayar Mexe Xombol ak Caajaay la ñu bëgg liggéey ci ñoom mooy ñu doon des villes secondaires Pout ak Pire piir gu rëy la ñu bëgg a ci ñoom mooy ñu doon des centres de service agricole mooy bu ñu béyee ci biir Thiès mën ko indi foofu gannaaw transformation mu doon de des des des pôles d'éclosion pour ñu distribuer à travers tout le Sénégal Kayar Taïba Mboro ak sa njara bëgg nañu doon des centres industriels Kayar Taïba ak Mboro Popenguine Taïba Niassène ak Pointe Sarène dinañ ko développer ci tourisme tourisme balnéaire waaye ak tourisme religieux également noonu la amee ci dëkk yi ma cité ñuy dëkk diine Mékhé centre artisanal d'excellence spécialisé dans la cordonnerie loolu moom lu am la ba noppi waaye dañu bëgg mu doon un centre d'excellence ndax suñu cordonniers yi kenn gënu leen ay waaye il faut ñu may jàppale leen ci ay machines yu moderne ba lu waay def feneen ñu koy importer ñu mun koo def fii di ko exporter. Pekes ak Touba ak sama dëkk Xombal ak Ngunjaan bëgg nañu ñu doon des centre commerciaux structurants xam nga loolu amoon na ci jamono tubaab. fu bëri dafa dooroon da ngay dem fekk fa ay Périssac ak ñu mel noonu c'était des centres commerciaux noonu lañ ko bëggee foofu Joal Fadiouth centre alio industriel et touristique jas pôle aéroportuaire ndayaan pole portuaire et enfin Daga-Kholpa pôle urbain lii mooy vision moom lañu indi andi teg ko te kenn ku mënul wax ni ci ñi ñu jiitu woon mos nañu andi vision bu leeree nii ñun ñoy ànd liggéey ko te mi ngi jaar par une victoire écrasante ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox daj di daje une prochaine fois asalaamaaleykum wa rahmatullah